man de sama bagage yi jema jaxal han ta man sax buma wowon boy daxa mbeur sama boy la suma wo suma ko wowon tias la koy def yobou ko ci biti han bu ko defé ya, sax bu bari ci limu la lañ ma ci kaw ndax man fa lay fexlo waye bagage yi wërma ni rek han ak koor gi sax iya damay mëna yegg ci kaw dalu bu ko defé daxa defaron ya, mako man dalu ci mëna reposer eh. mbedd mi sen coow li bëri xale yi bëri nañ bruit lii kenn du ko waaye tamit dund gi seer na dund gi seer na billaahi ceeb seer na diwlin seer na suukar seer na waaye Macky waxal ci lii président waxal ci lii ah ah sinon lu ko may Sonko day ñëw day ñëw de Sonko lu ko may euh, dana dana ñëw de booy boobu presse day ñëw de bàyyi ci xel. waaye nag koor gi koor gi métti na de métti na torop. ak ma wéeru nii man. Boy. What's up? waaw naka ma. maa ngi ci jàmm. yaa ngi fi. loolu la demee nii fan yii su may wax ak yow damay wax ak yow nga may sewal n'importe quoi. yaa ma ko danaa la jiiñ. yow mënoo bàyyi fu nit ñi taxaw rek nga génnee sa jikkoy kàkkatar. mais c'est parce que ni ma def moo ma neexul moo tax ba ma ko def woon ni ma ko def. da ngaa war a changer nit boo nekk ci ay biir nit da ngaa a xam nooy doxalee waaye soo béykat ci ay biir nit ngay gën a mën a am comportement. mais su ma meree nag am naa droit mer tamit te ba ma ko nag amul benn problème. mais nag ay condition condition ci weeru koor bi léppay seet. lépp garaaw à part waaw modèle la boobu ñu def naam. Fatou yow fi nga dalee dem marché ba léegi loo def marché. moom dama doon ndugg. waaw ndugg ba heure bii di soog a ñëw heure bii. waaw man de yaa may bëgg a jaaxal de. waaw mais kii ki yor ndugg mi. ba nga doon tase fii naaj bi tàng ma ne xaaral ma teewoo yow lu xam ne naa la de te yow li nga dugg te dugg ci kër gi mi ngi bëgg a bëri. man la de xam naa la xàmmee naa la bu baax laa la wax. mais dama ah. bëgg nga déglu ma. ma ni la li ngay àndal Fatou mi dafa mi ngi bëgg a bëri laa la wax. mais bi lañ tase naaj bi tàng man ko xam nga teel la mbuus bi. la ma su nekk ba pare 11 jours. la ma su nekk ba pare 11 jours. 11 jours jot na ñu toog fee ci saal ma doon laaj Fatou nga jékki-jékki tëb ni xaw ma lan mbaax affaire yooyu noonu booy. teel ba indi Fatou ma ni déglu ma. man oh, maa ngi wax ak yow ah maa ngi wax ak yow de. maa ngi fàttaliku ah, yow. baax na daal waaye Zal. waaw kay sa nadiya walla mun je dama da gobe su masabbi ne dai yan yara ne da ke da babari bayan nadiya walla na biya ta mu don te mu don fetu pabis da mu ne ya an da su masabbi bari na dai mun bai la am a wa mun bai te yéen boo nga sellal sax xaw a sellal ko di ba koor gi jàll mais yow booy zaal yow dama la xam ci kër li ngay dugg ci kër gi dugg dugg bi dafa bëri. ba pare saa suy dem marché sax da koy gunge. loolu kañ la apartheid. non man yow man yow luy loolu. man maa la xam mais. Eh, man laaj la man ba gis la tey. preuve mi ngi nii. ma laaj si am tey naa naa ko. Ah. waaw xamoo nga mère Absa. kuy mère Absa. mère bi jaay bi jël ci bopp koñ boo jaadee nii rond point foofu. mère Absa. barki démb ba ma tëdd sa jasneer bu bule bi bañ ndogoo ba pare. waaw. yaa ma xamoo li ma la maa lay gis xamoo li ma la maa lay gis. waaw yow yaa mën a fet man foo ma gis. Ah, mais yow man yow yow yow sa waay yow bu bule ma sol da nga doon ndogu ji. kenn xam nañ lépp dégg nga. dégg nga yow da nga may topp kon ndeke. mais yow booy yow booy ginde nga war a nu mu demee noonu yow. loo ko jëlee baax na. te xam nañ lépp nag boo doon doon ilaaha eh, illallah. da nga may déglu mos ngeen a gis lii. da ngay déglu ma wax. booy bii de te dangereux booy bii. naa wax. sa jabar sa aaw bi nga jël yóbbu ko dëgg ba nii ndax mel am sa man ragal naa la ah. ragal naa la wala ragaloo ma loolu yëpp wax man maa ngi dem sa jaamu. xam nga sama jaamu déglu ma noppi nag bii di ko dégg. yow daa a wax daal lan mooy ni sa mii gis naa daa xaw a mool léegi yow daa xaw a mool léegi comme la fatul xaw la mool ñi gis mère ka mo la mo gis boy yow mi ay domam da am ay dom momit yow mi jaaxal nga ma de nim nekk set mère anta non la nekk ay set jamm damay fañ fañ suñu lé mu génn ma mamu waaw kon ben dem sama yoon naa la leen apat ben mom may jamm ci kër ci la mo taj japp dom ragal la ah la ilaha illallah boy bi ci topé na ma mboro de